maire mu débarqué ànd ak infidèle pourquoi le choix déjà de Evan Prod euh, ci série bi di infidèle merci beaucoup Safia maa ci seetaan yëpp ba toog bi ma toog aussi euh, dama marié woon entre temps j'ai eu deux enfants voilà loolu moo tax tamit ma def merci beaucoup ma defoon benn break tuuti donc euh, y a pas mal de séries yi ma contacté woon pour ma ñëwaat mais bon xëy na yàlla aussi moo tuddoon ni waa Evan Prod ñoom ñooy si ñoom lay démarré waat sama kii voilà donc euh, man maa ngi doon interprété euh, rôle Adelaide si Infidèles voilà ñëpp ma xamee ma tamit si Cathy Chema Diaw un café avec. d'accord mhm. Cathy. beaucoup la adoré ci ci ci li nga xam ne mooy lu mu doon joué ci beneen ci infidèle tamit dinañ la en tout cas daal nañ connecté rek ñu ngi indi affaire yu bëri bagage incha allah. ngeen andi lu bëri di ngeen mbóot yi parce que am na ñoo xam ne. soo leen xoolee da nga naan ce des gens réglo. on va découvrir